bonsoir ami internautes yu Walf Net mbégte ak kontaante la ñuy àndal bu baax a baax di leen ziar bu wér wér seen xarit la Thioro Maxu Mandela comme ni ngeen ko xamee ci biir Walf Net indi leen rek lu bees tàq loo xam ne nii daanaka rek xëy na dañu naan sax wala tàngal ceeb la ñuy wax ndax laatuwaal lañ leen indi laatal ci li nga xam ne moom moo di biir Walf Net di leen fas yéene rek indil chaque jour que jëfee li nga xam ne moom mooy li gën a fës ci euh, toile bi laa toile ak Thioro Maxumande laa yàgg lool la toile jur fi lu ne tudd fi lu ne waaye itam euh, génn fi lu ne ci ay information yu tukkee ci li nga xam ne moom moo di ci internet bi ci réseaux sociaux yi la moo mook Thioro Maxumande laa kole euh, ñàpp kenn dootul bàyyi sa morom moo tax tey ma tàngalaat ceeb indil leen ko ci beneen anam ci beneen forme waaye itam Euh, ci nu mu gën a euh, yombee ci yéen pour ngeen am information yi xew lépp ci internet bi euh, ci kaw loolu aussi dañuy daal di rek tàmbalee ak li nga xam ne moom mooy suñu sujet yi dañuy génn ay dépêche yu bari yoo xam ne dañu leen koy bàyyi ngeen dund ko waaye itam di ko commenter ak yéen comme ni ngeen ko daan jotee incha allah rabbi ci loolu nag dañuy njëkkee ak ki nga xam ne moom moo di le président de la république Bassirou Diomaye jaaxaar fay mi nga xam ne dafa nekk actuellement Euh, voyage euh, fële nga xam ne moom moo di ca diwaanu euh, Chine moom moomee di le président basiru Diomaye Faye di gën a marqué nit ñi wala sax wa ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci réseaux sociaux yi li leen gën a marqué ci demuk le président Bassirou Diomaye Faye ci Chine googee nga xam ne nii mu ngi fa def mu ngi fa dem ci voyage boobu boobule voyage li leen ci gën a marqué bokk na ci ñu daal di gis mu daal di tenir ay euh, promesse maanaam euh, dafa daal di ànd ci benn avion euh, moom ak soxnaam di la première dame waaye itam mu ànd ci ak ñaar ci ay ndongoy daara yoo xam ne ku ne xam na ni dañu gañe ay prix ay lauréat lañ ci concours général bu 2024 bii Euh, muy euh, ñuy wuyoo ci turu Ahmadou Bachir Touré naka noonee euh, Zeynab Diène Samb ñoom ñaar ñëpp kii di président de la République Bassirou Diomaye Diakhar fay naka noone la première dame. dañu ànd ak ñoom ci benn avion bi nga xam ne rek moom la président ak soxnaam di voyager ci voyage yu ni mel lu ni mel marqué na bu baax a baax mbokk internautes yi nga xam ne ñoom ñooy faral di commenter waaye itam di publier li nga xam ne moom mooy seen ay bëgg-bëgg am na ku wax ne rek euh, ku gëm ne le président Bassirou yi Faye ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko dinañ liggéey réew mi nee na ku ci gëm rek na abone ci page waaye itam am na ku ñëw daal ne euh, c'est motivant nee na lii nu mel dina tax mu daal di jur ay excellence fi nga xam ne moom moo di ci réew mi te it dina gën a tax xale yi daal di gën a yëngu ci seeni ay domaine waaye itam gën caa mën a jël premier waaye itam kenn bañ a jël ndaare nee na lu ni mel tam am na ku ko wax nee na euh, lii lépp euh, dafay war a rek xale yi gën a xam ne lii lycée aussi du période fo du jamono joo xam ne dañ cee war a nekk di def naka sudul noonu lu dul concentré wu euh, ndax xam ne foofee rek ngay jaar ngir dugg ci li nga xam ne moom mooy am jeexal jeexal sam jàng naam sax métti na waaye itam am na ku ci euh, commenté di wax ne rek lu ni mel dina daal di gën a yokk jom bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñu daal di mën a concentré wu ci njàng meeg yeneen donc commentaire yu ci bari bari loolu la ñu loolu la ñu wax Euh, am na ku wax ne Jomaay euh, ba muy dem ba yóbbaale xale yi mënoon naa yóbbaale Ousmane Sonko comme ça muy waxtaan xale yi ci biir li nga xam ne moom moo di boobule avion ndax mu gën leen a mën a sensibiliser waaye yaakaar naa ni euh, lu président wala sax lu premier ministre Ousmane Sonko mën ci lu ñu mel kii di président Bassirou Diomaye Faye dina ko mën ci waxtaan ak xale yi donc voyage yu jàmm ak salaam li leen di ñaana lii rek mu ne jaar na jàng ba dee mais. ak naar bi moom dangay waaru kii moom loolu la wax ci commentaire bi neena lu ni mel jar na jàng ba dee ndax nee na ak naar bi moom dangay waaru donc euh, euh, ñi may déglu ak ñi nekk ci biir internet bi xam nañ li may wax ci côté naar bi ñoom seen donc euh, dañu leen di bàyyi ak yooyu les commentaires donc bu ñu jógee ba tey jii ci ki nga xam ne moom moo di le premier le le président de la république pa président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dañuy ñëw ci keneen. di ki nga xam ne nii rek euh, moom moo di euh, euh, Mimi Touré Mimi Touré yàggul dara dara bi ngeen gisee ñu jox ko ab poste ci fi nga xam ne moom moo di ci biir gouvernement bi moom Mimi Touré moomu li gën a tax nag mu marqué jamono ji ñi nga xam ne moom mooy mbokk internet yi dafa am émission bu mu def muy wuyoo ci turu émission bi di dañ kumpa bi mu def ci RTS 1 di ko def ak sunu mbokk Ismaïla Euh, moomee nga xam ne nii nag après vidéo yi dafa mujjee viral parce que ñu ci bari bari euh, xëy na ci la ñu découvrir euh, kii nga xam ne moom moo di Mimi Touré ci lu baree bari loo xam ne nii ñu ngi ko ci doon xaar waaye itam bari na daal luñ ko ci taggee ndax boobu boobule émission dafa gën a wanewaat xarkan mu Mimi ci nekkinam ak ay mbokkam ak ay jegeñaaleem ñoom ñu gërëm ko ci wax li nga xam ne moom mooy Euh, euh, mbaaxam wax njariñam ci biir ay mbokkam ak xaritam yi ñu wane tam li nga xam ne moom mooy njàmbaarteem ak force bi nga xam ne moom la mës a àndal moom mi mu ture ba tax na ñu wane beneen facette ci moom émission boobu euh, ma ciy profité di wax ni genre émission yu ni mel dañ ko war di wane ci fi nga xam ne moom moo di ci euh, euh, euh, Sénégal ndax bari na njariñ goo xam ne yu émission yi am yoo xam ne duñu ko wanee lu ci mel ni émission boobu di dañ kumpa ñuy félicité bu baax a baax suñu mbokk moom di Ismaïla yàlla dëgëral taxawaayam donc lu lu ñu war di pérenniser la maanaam di ko yaatal ci Sénégal ngir àdduna bi yëpp yëpp yëpp xam ne nit ñi nga xam ne kat ñoom ñooy ne ci politique ñoom ñooy ne ci musique ak yeneen ak yeneen am nañ yeneen facette yoo xam ne nii wala leneen du ñu xam ci ñoom rek li ñuy ci seen wàll wi nga xam ne moom mooy seen euh, li ñu bëgg a def euh, seen profession maanaam li nga xam ne ni moom ci la ñuy yëngu donc euh, wane nañu foofu lii di dunduk Aminata Touré ci jàppale ay doomu aadama jàppale ay mbokkam waaye tam mën leen a yiir waa tax na ba moom Mimi Touré boo dee xool ci boobu la émission ñu daggaat ko dugal ko ci internet bi bari na ci loo xam ne nii daal ji na koy wane ci xar kanamam bi ñi nga xam ne ay mbokkam ñoo doon témoigner ci moom mbaa yeneen leneen mu nekk beneen Mimi Touré moom moo toog donc euh, am na ku ne sunu tata national ndakate lii lépp am na ko ci ay xar baax macha allah la ñuy wax euh, euh, am na ku wax ni mention spéciale à toutes les femmes du monde entier waaye itam loolu lépp da koy jël nee na teg ko ci loxo Mimi Touré mu daal di koy séddale àdduna wërngal këpp nee na am na ku ne on aime trop avoir des sentiments yoo xam ne dara du si dëgg nit ki si télé nga ko xamee bëgg a wax euh, si mi et personne boo xam ne bu normal fi mu bëgg a waxee daal xëy na àndul ci boobu li émission yaakaar na ne lañ fa wane lépp xëy na euh, loo xam ne nii la ci télé rek lañu koy gisee mais du euh, ñu koy gis ci vie normal mais nag comme li ñuy wax saabu du fóot boppam mais tamit nit ki dañu naan ndax baax na te bu ñu nee ndax baax na dañu naan ndax mbokk yaa ko wax bu ñu nee nit ndax baax na dañu naan ndax mboq yaa ko wax wala jegeñaale ya ñoom ñoo ko wax te ay jegeñaaleem yaakaar naa ni ñoom ñoo toog daal di koy gërëm donc dañ koy nangul lu ni mel rek euh, parce que ku ci nekk nag mënoo wër àdduna bi yépp ku ci ne nga baax ci moom ku ci nekk nga nga def yeneen ak yeneen mais côté humanisme am la ñu wane côté bi nga xam ne da koy jàppalee ay mbokkam ñi ko sës euh, waaw ba tax na daal bari na ci ñoo xam ne nii nee na ñu ki nee na j'ai suivi l'émission dans son intégralité hier ce qui est fort rare pour moi étant donné que je n'ai guère de temps à consacrer à la télévision moom daaw sax seetaanee la télévision lu ci baree bari mais na ne intégralité émission bi yëpp la seetaan maanaam émission du début à la fin parce que li ko waral moom mooy gis na njariñ ci boobu la émission kon kooku ba tey dañ koy nangul euh, euh, li mu wax euh, am na keneen ku ñëw tam ne j'ai suivi l'intégralité de l'émission et j'ai une femme intègre euh, kooku moom aussi loolu la wax ci yilee commentaire nee na une femme intègre la gis euh, ci li nga xam ne nii moom la euh, gis ci émission boobu donc am na ci ñu bari bari ñoo xam ne nii tam bu ñii dee ŋàññi ndax ñëpp duñu àndandoo ne gongo bu ñii dee ŋàññi ñii ñu ngi woy di wax ni rek sincérité la ñu gis ci kanam Mimi Touré ak ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo koy waxal lu baax ci boobu les vidéos mais aussi ñu bari bari di wax ne tam Mimi Touré ku ko jegool mënoo koo xam am na ku ne ci biir commentaire yi ne moom euh, euh, je je l'ai connu avant son compagnonnage avec Ndafa Ndafa ku ne xam na ne mooy Macky Sall fii sañ nañ koo tudd mu ne c'est pourquoi j'étais beaucoup étonné qu'elle ait duré avec ce dernier les qualité ne sont pas les donc euh, moom li ko jaaxal nee na bi avant muy Mimi di ànd ak ki nga xam ne moom mooy Macky Sall xam na Mimi Touré bu yàgg nee na nag bi mu gisee Mimi dem di ànd ak euh, Macky mbir mi da koo jaaxal lool parce que xam na ni qualité yi du benn euh, euh, c'est deux personnes yu différentes donc lan moo tax Mimi Touré di dem di ànd ak ki nga xam ne moom mooy euh, Macky Sall waaye itam ku ne xam na ni ànd ga yàgg na yàggut waaye Mimi moom mujjee na daw wéqat bàyyi fa ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ndax troisième mandat euh, euh, doo koy def ak da koy def donc bu buñ jógee foofee nañu daal di doxantu dem feneen foo xam ne dina yitteel mbokk internautes yi bu baax a baax a baax ndax moom mooy rek hémicycle bi mu di assemblée nationale ca la ñu jëm ndax ku ne wootee ci beneen euh, vote de loi boo xam ne euh, dañu ko fas yéene rek jagleel li nga xam ne euh, moom mooy tas li nga xam ne moom mooy HCCT ak li nga xam ne moom mooy CSE ñaar yi nga xam ne ay structure la yu basé woo wala yu bànqaasoo ci li nga xam ne moom mooy état daanaka ñoom ci seen bopp du woon décret moom moo leen indi Euh, euh, ñaari structure yooyu dañ ko voté woon ci ab loi boo xam ne moom moo fi teg ñaari këru liggéeyukaay yooyu nga xam ne euh, président Macky Sall moom moo ko fi tegoon président Macky Sall nag ba mu ko fi tegee nguur gu bees am na alternance am na le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak nguuram dañu jàpp ne pour rationaliser li nga xam ne moom mooy les dépenses de l'État pour rationaliser li nga xam ne moom mooy jëm-jëmu nguur Euh, moo tax ñu daal di bëgg a supprimer ñaari euh, structure yooyu nga xam ne dañu fa dëxëñoon ay doomi aadama ñu fay euh, daan seen doole ñu fay liggéey ñoom nag nee na ñu amalul li nga xam ne ni moom mooy askanu Sénégal njariñ ñaari structure yooyu amaluñ ñu benn benn njariñ li li ko waral rek moom mooy dëxëñ fa seeni ay mbokk ci wàllu politique dëxëñ fa seeni ay jegeñaal ci wàllu politique fexe rek ba daal di leen fay utal porox ndollu ngir ñuy fayeeku jëme ci état waaye tam ñu banqaasoo ci état moom moo ko waraloon loolu moo tax le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xam ne mooy le premier ministre Ousmane Sonko ñu jàpp ne nécessité la ñu daal di tas li nga xam ne moom mooy ñaari structure yooyu ñaari structure yooyu nag tas ko du question que dañuy ñëw rek ne tas nañ ko tas nañ ko parce que décret taxul woon ñu ñu ñu ñu teg ko fi euh, li taxoon ñu teg ko fi mooy euh, vote de loi pour teg leen fi waaye itam pour ñu teggi leen fi dañuy dem fa ñu demoon mu di assemblée nationale bi nga xam ne ñoom ñoo voté woon ngir ñu teg leen fi foofu la ñuy dellu ngir mën koo tas ci nu mu gën a gën a yembee waaye itam ni mu gën a jaadoo ci kaw tegu ci waat ci kaw yoon na mu ko santaanee donc lu ni mel nag tax na tey jii assemblée mel ni tulleeg màlle mel ni loo loo xamut assemblée national tey jii dañuy rek ànd ak ki nga xam ne moom mooy sunu technicien di fàllu daal di dem seetaan ak Omar daal di dem seetaan li nga xam ne moom mooy video bi daal di dellusiwaat ci fi nga xam ne moom moo di ci waxtaan wi parce que il faut ñu tegal ko ñëwaat. waay

mel ni rek seetaan ngeen vidéo bi nga xam ne moom moo tukkee ci assemblée nationale assemblée nationale xar kanam gi ba tey jii jeexut li ci sénégalais yi bëgg ba tey jii amuñu ko ba tey ñi ngi woy di gis xar kanamu assemblée nationale ci ay xuloo ci ay maa la gën a pànk ci ay waxanteelu ñaaw ci ay waxanteelu bon te ci ay yoo xam ne nii euh, moom la sénégalais yu ne dañoo bëgg mu daal di dañ euh, ci foofee nga xam ne moom moo di ci hémicycle bi ci assemblée nationale gi nga xam ne député yi ñu fa teg jom fulla fayda la ñu leen fa tegee ndax askan bi moo leen voteel directement euh, suffisa suffrage universel lañ leen votelee yóbbu leen foofee nga xam ne moom moo di ca assemblée nationale kon tey jii euh, war nañu fa teewal askan wi waaye boobu ba tey ñu fay gis xeexoo xuloo euh, dóor na koom dóoru ko wax ci lu ñeelul askan wi wax ci loo xam ne askan wi yónniwu leen ko di def ak naka su du noonu ba tax na assemblée nationale ñaari at yi mu fi des nii euh, bees na beesut yàgg na yàggut askanu Sénégal dañ cee doyal sëkk sëkk sëkk sëkk ndax di gis ay député yoo xam ne nii seeni kan xar kanam warul refléter xarkan kanamu askan wi di gis ay député yoo xam ne seeni wax warul refléter waxi askan wi wi ñoo xam ne nii dañoo dem wax loo xam ne yónni leen ko benn yoon te ñu rek ay ay ay ndaw askan wi nee nañu lool lañu ñu bëgg mu dañ ci assemblée nationale bi nga xam ne gis nañu jamono ji ak ñeneen ak ñeneen nga mën leen faa tudd assemblée nationale boobu nga xam ne nag euh, vidéo bi ñu leen tegal ci ngeen gis ay màggetu korkoraan yoo xam ne ba tey ji ñoom ñooy woy simi seeni ay coquette simi seeni ay dàll fas yéene euh, euh, màcc seeni ay rouge à lèvres jàkkaarloo ci seen biir di xeexoo ko xuloo moo xam góor moo xam jigéen ku ci nekk di tàcconte ak say moroom assemblée nationale boobu moom la ñu leen wanaat nii ne leen bii assemblée nationale ba tey moom moo fi toog ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, xar kanamu askan wi ba tey jii ci jéegu pëli pëng yi nga xam ne ñu ngi leen di gis ci biir assemblée nationale ñuy tàccoo ko ci lu leen neex ñu nekk ja askan bi nee na assemblée nationale boobu la ñu bëggatul a gis askanu askan boobu nga xam ne moom mooy gis euh, boobule assemblée nationale des députés yoo xam ne bëgg bañuñu gàcce bañuñu euh, euh, lenn bëgguñu benn yoon waaw góor ci assemblée nationale boobu askan boobu nag mooy jooy ba tey jii ba tax na tey jii plénière amati ñu jàkkaarlooti di waxati di waxanteeti naka sudur noonu ak di defante naka sudur noonu loo xam ne askan wi yónni leen ci donc noonu la ñu ubbee tey jii li nga xam ne moom mooy euh, plénière bi nga xam ne ñu ngi koy amal tey jii ci TAS HTTC ak HCCT ak li nga xam ne moom mooy CSE donc muy nag euh, loo xam ne normalul benn yoon ci li askan wi di xaar waaye itam ci assemblée nationale boobu ba tey jii euh, ca la ñuy desandi ndax assemblée nationale boobu moo waral tax euh, tey jii euh, ci bi ci fi nga xam ne mooy perchoir bi fa nga xam ne fa la ñuy waxee ci kanamu le président de l'Assemblée nationale des députés yoo xam ne ba tey ñu ngi am sañ-sañu dem taxaw di euh, xeexoo ak di xuloo mais waxatuñu loolu ñuy attaquante ci seen biir ci kanamu le président bi nga xam ni moom moo yeyoo euh, euh, wala sax moom moo jiite assemblée nationale boogee nga xam ne moom la ñuy wax waaye itam foofu la ñuy gis ba tey des député yoo xam ne ku ci taxaw te waxoo wax ju lay sewal wala wax joo xam ne day tax nit ñi manqueel la da ngay yaakaar ne waxoo des députés yoo xam ne ba léegi nii da ngay gis ne amaguñu ba tey conscience que Séné àdduna bi mi ngi leen di raw politique Sénégal mi ngi leen di raw révolution bi sénégalais di wootee raw na leen te it dootu leen dootuñu ko dab foofu ba tey ji ngay gis des députés yoo xam ne ña nga taxaw ba tey ji ko tàmbaleeti seenum riir tàmbaleeti seenum xuloog seen xaste ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba tey ñu desandi ci assemblée nationale gi nga xam ne euh, nee naa leen euh, euh, tas HTTC moom moo ko tax a jug tey ak tas li nga xam ne moom mooy CSE foofu la ñuy dem fekk fekk yi nga xam ne moom mooy euh, Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly mi nga xam ne ni aussi euh, ko xam assemblée nationale bu Sénégal yaa ci ko ciy bëgg a miin moom Cheikh Abdou Bara Dolly euh, Mbàkke mi nga xam ne du bàyyi boppam benn yoon saay bu assemblée nationale amee plenière ak lu ca mënti xew rek dina wane boppam ba ñëpp euh, gis ko moom Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moomu nag euh, ñëw na ak force ak dooleeti comme na mu ko defee woon nee na euh, projet de loi bii nga xam ne dañu koy voté ngir tas HCCT ak CSE da koy voté ba mu neex nee na da koy voté ba mu saf-saf moom Cheikh Abdou Bara Dolly moom moo ko wax ginnaaw bi mu taxawee ci ci kanamu perchoir bi ngir wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo moroomu député mi waaye itam euh, ki nga xam ne moom mooy le président euh, bu assemblée nationale nee na day voté par force te nee na li tax mu koy voté argumenté na ko nee na moom yàgg naa indi ay projet de loi lu jëm ci euh, neenal wàllum góor jigéen fii ci Sénégal ak yeneen ak yeneen ci ay projet de loi yoo xam ne nii nee na kenn dégluwu ko ci kenn euh, farataalu ko ci dañuy jël yooyu la këyit rek dëxëñ ca suuf euh, daal di ne yooyee mënuñu ko waaye itam daal di nay sax dem. ba attaque ki nga xam ne moom mooy le président de la république sortant bi nga xam ne moom la ñuy wax Macky Sall euh, bi nga xam ne moom moo fi nekkoon pendant douze ans yii nee na euh, euh, projet bi nga xam ne nii moom mooy projet wu Macky moom mooy faagaagal ay nit wax na ko te nee ci kaw loolu nag moom dafa am ab téere boo xam ne ni ab livre bu mu bind dëxëñ ci lépp luy naqaram wala lépp lu mu gis lu Macky Sall defoon ci pan ci 12 ans yi nga xam ne 12 ans de règne lañ koy tuddee yi mu fi nekkoon ci bopp réew mi moom Abdou Bara Dolly Mbacké nee na livre rouge la ko tuddee maanaam euh, ab bataaxal yoo xam ne da koy dëxañ ci livre boobu daal di ci wax lépp lu Macky Sall nekkee woon bokk na ci mu cité ñu bari bari ci ñoo xam ne Macky ñamal na leen ndungu siin maanaam jot nañoo dem fële nga xam ne moom moo di ca kaso ca kaso yi fii ci Sénégal waaye itam wax na ci lu baree baree bare dem na sax bay tudd le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak le premier ministre Ousmane Sonko di wax ne euh, Macky Sall ñamal na leen kaso moom moomee tam di euh, euh, ki nga xam ni moom moo di Cheikh Abdou Bara Dolly di waxaale na boppam nee na ñamal nañu ko kaso te it nee na livre rouge boobee dina ci dëxëñaale lépp lu assemblée nationale nekkaale boobu ba tey ci douze ans ci euh, deux ans yi nga xam ne ñu ngi koy euh, ñu ngi ko teg ba tey dina ko ci dina ko ci wax waaye daal lam ca wax lépp lépp lépp lépp euh, ci plenière boobu ba mu jëlee kàddu bokk na ci wax ay li nga xam ne mooy gàkk-gàkku nguuruk Macky Sall waaye gis ñu ko benn yoon mu génne comme ni mu ko doon defee fan yi passé gàkku-gàkku nguuruk Jomaay Fay Bassirou Diomaye Diakhar fay moom daal euh, daanaka euh, taggaat na ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñii nga xam ne ñoom ñooy yor nguur gi ci bi mu taxawee ci perchoir bi taggaat na leen waaye tam xasati na kii nga xam ne moom mooy Macky Sall loolu nag kenn du ne guléet ci Abdou dool Dolly Mbacké ndax moom tamit comme ni ma koy waxee samay argument bopp la man maa koy waxal sama bopp sama analyse la yu ma yu ma jëlee ci li nga xam ne moom laa ko gis mu koy doxalin bopp ba tey mooy du koo xam ne nii daal àndandoo bu wóor la ci ni ma ko mën a waxee ci wolof du àndandoo bu ndax tey jii euh, mën na xas kii bu subaa mu xas ka ca des donc euh, xëy na dootul ànd ak mag Sall wala ñuy jege Macky Sall moo tax tey jii mu ne HCCT boobu ak CSE nañu ko tas mais tamit. nekk na koo xam ne ni aussi gis nañ ko fan yii passé génn na xas nguur gu nguuru Sénégal gu bees gii nguuru le président Bassirou Diomaye Faye bii rawatina le premier Ousmane Sonko donc du koo xam ne nii nag ku ñu wax ne ab àndandoo la bu ñu war a àndandoo rek wéyaaleeg moom donte ne tey jii mi ngi leen di jàppale ci projet de loi bi nga xam ne moom moo war a tas ñaari structure yooyu nga xam ne dafa bànqaasoo ci état. dañuy desandi ba tey jii ci assemblée nationale daal di waxtaane leneen loo xam ne ni rek euh, lu ñu soxal la bu baax a baax a baax Euh, mu di euh, euh, ba tey ñi nga xam ne ñoom lañ doon jox parole tey ci ay député ci perchoir bi ñu war faa taxaw waxtaan ak askanu Sénégal wax ak seen moroom yi député yi waaye itam di wax ak ki nga xam ne moom mooy le président de l'Assemblée nationale kii nga xam ne nag moom mooy di le député Mame Diarra Fam mi nga xam ne ku ne xam na ko aussi moom ci ay prestations yu mu yàgg a def wala sax ñu mën koo tuddee ci ay kàddu yu mu yàgg a yëkkati wane boppam carrément fële nga xam ne moom moo di ci assemblée nationale defati na ko tey defati na maninam ba mu yëkkatee ay kàddoom ba mu waxee ñëpp xam nañ ne moom mi nga xam ne moom mooy Mame Diarra Fam daal dinay dikkati defati na euh, euh, li mu parce que li mu wax moom tamit simple na moom mi nga xam ne moom moo di maam Diarra Fam euh, lu ñu mën a duut baaraam la parce que dafa ñëwaat ci ne day voté loi bi nga xam ne dafa war a tas HCCT ak CSE nee na moom da koy voté yëkkati na loxoom yooxu ko ca kaw nee na da koy voté euh, ci euh, anam moom ko defee ak maninam nee na euh, li tax moom mooy diwaanu Pikine ga mu fekk baax juddoo fa yoroo fa màggee fa ba toll nii rawatina ginnaaw raay danoo nekk ci naqar boo xam ne ba tey dañagul ci seeni xol te yaakaaruma mu dañ ci seeni xol muy génnuk àdduna Aziz Dabala ak waali foofee ca Pikine mu de insécurité boo xam ne wala sax mbir yoo xam ne ñoom askanu Pikine wala askanu banlieue bi ñoo ngi koy dund te li ko waral nee na bokk na ci ay euh, li nga xam ne moom mooy manqué ay euh, euh, infrastructure sécuritaire yoo xam ne nii ñoom dañu koy jooy ñoom diwaanu banlieue bi na Pikine moom sax nee na bu ñu amoon caserne sapeur pompier am euh, euh, nee na division des investigations criminelles foofee ca Pikine dañuy jël nee na am police bu mag ca Pikine dañuy jël nee na euh, lu ci bari bari dañu ko séddale séddale ko waa banlieue bi nee na waaye dañu ko jël toftal ko wala sax jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy waa géejawaay lu ci bari bari dañuy tudd pikin te duñu wax géejawaay lim na daal lu bari bari loo xam ne dañ naan Pikine géejawaay alors que ci géejawaay lay bokk képp ku nekk géejawaay daanaka lañ nga mën a bénéficier waa euh, Pikine ñu ci mën a bénéficier woo noonu moom nag loolu la daal di décrire nee na daal lu ni mel tax na ba dafay bëgg ñu tas ñaari structure yi di HCCT ak euh, fi nga xam ne moom moo di CSE ndax nee na bu ñu ko tasee dinañu mën a rationaliser les dépenses de l'État maanaam dinañu mën a sakkanal alal ji nga xam ne moom moo war a euh, jëm jóge ci poosu Euh, askan wi di poosu état ba tey jëm ci état bi nga xam ne moom mooy le gouvernement nee na daal bu ko defee bu ko tasee dinañ mën a sakkanal alal joo xam ne ñoom waa Pikine lañ ca bëgg dinañ ko am ci wàllum infrastructure yi jëme ci wàllum sécurité ak yeneen ak yeneen waaye tam moom Mame Diarra Fam ka muy waxal bëgg naa xam kan la man ci sama dañ kumpa ci wàllum journalisme bi nga xam ne ci lay liggéey parce que Mame Diarra Fam day wax 9 milliards ou 16 milliards daal di juum ba mu ko waxee nag daal di juum am na ku koy wax ne ko yaa ngi yokk yaa ngi yokk chiffres yi euh, moom maam jaara faam mu daal di koy teelu ba mu ba mu nekk tekk mu daal ne ko su ko yokkee it mooy benn milliard bi nga xam ne moom moom nga ma war a jox moom nga war a joxe askanu Sénégal ñu daal di koy toftal ci li nga xam ne moom mooy ci rationaliser les dépenses de l' état mu nekk nag koo xam ne nii tàmm nañ gis ko muy xuloo ci biir assemblée nationale mais ay waxam day am importance day porter à chaque fois benn député la boo xam ne nii marqué na empreinte am naam sax yàggagul euh, ci assemblée nationale parce que boo dee xool ci ñeneen ak ñeneen maam Diarra Fam bokk na ci ñi nga xam ne ba mu egsee rek la marqué empreinte mu ñu koy tudd saa su ne ci assemblée nationale waaye itam euh, ku ne xam na ni lépp lu mu ne lii ci ay principe da koy wax da koy wax ku ne xam na ne aussi da koy wax bu baax a baax a baax donc euh, ci kaw commentaire yi nga xam ne toftal nañu ko ci publication boobu am na ku ne Mame Diarra euh, commencé na reconnaitre ne waa Pikine euh, xam na élection yi ñoo ngi ñëw nee na commencé na ci lecture bi ma def ci li nga xam ne moom mooy euh, commentaire bi mu bind nee na Mame Diarra Fam mi ngi soog a xam dayooy waa pickin parce que xam na ne élection mi ngi soog a ñëw surtout législative ku ne xam na ne ku ci dem aussi ci liste jàmbur wala ci liste boo xam ne nii da nga koo dem ci sa parti wala sa coalition di nga soxla ñi nga xam ne ñoom ñooy askan ba ngay teewal bu baax a baax a baax euh, foofee nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ngir ñu yóbbuwaat la fa donc euh, am na ku wax tam daan ne euh, député Fanta Sall moom. Euh, fu mu féetee tey gisuma ko de parce que Fanta Sall ku ne xamoon na ko euh, moom it ci ay euh, yeneen ak yeneen rondeur ak yeneen mu koy wane foofee ci assemblée national comme ni ñu ko mën a tënkee mën jàpp naa ne loolu moo tax mu daal di koy làcce ci biir li nga xam ne moom mooy commentaire yi ci lu jëm ci Mame Diarra Fam ndax xam naa ne Fanta Sall attanul waxi Mame Diarra Fam attanul tàccu Mame Diarra Fam attenul ay ay dem ak ñëwam attanul wërëñam moom Fanta gisuma benn yoon mu mës a taxaw. ba euh, euh, wax ak maam jaara faam lu tax ñu ne feeñ naam feeñu moom daal ay rondeur taxoon na mu feeñ ci assemblée nationale ne député bu bennoo bokk yaakaar la ku ne xam na ki ñuy waxal euh, gis nañu fa ñeneen nag ñoo xam ne ni yor nañ seen làmmiñ di di di di di pëll pëng pëll waaye tam ku raw maam jaara faam ci côté boobu moom gisaguñu ko ci assemblée nationale donc ki nee na Pikine kay lu dul ay simatière amuñu ko donc nee na Pikine ay cimetière rek la ñu am kon li Mame Diarra Fam wax da ci ànd ak moom kii nee na Dakar rek du Sénégal euh, euh, wax leen leneen ak leneen ak leneen ci lu ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk biir Sénégal dëgg la parce que dakaar rek du Sénégal insécurité bi fépp la comme ni ko Mame Diarra Fam waxee nag waaye itam surtout suñu dëkk ak dëkkaat yi nga xam ni dañuy euh, dañu manqué ay infrastructure sécuritaire ba tax na fépp fépp la ñu war a kaasal waaye itam am na ku ko wax lii ci commentaire yi Mame Diarra am ku ne xam na ni tey jii euh, bu bëggaatee nekk député faw mu dem làmbatu wala sax xool électorat ba nekk ca Pikine donc looloo tax nag fi mu nekk nii teewal Pikine dafay daal di jot bu baax a baax a baax kii nee na waa PS ak PDS votre passé récent vous nee na leen seen euh, génn gu yàggul gii wala sax euh, seen li nga xam ne moom mooy seen nekkin. bu yàggul bii daf leen a rattrapé seen nekkin daal parce que nag euh, ku ne xam na ni PS euh, mujjee naa seey ci Benno Bokk Yaakaar euh, daanaka li ñuy wax ñoom ñoo taxoon mujj gi Benno Bokk Yaakaar namatul dara ñoom ak AFP. daanaka dañu jaayoon seen lépp lépp lépp donte ne nag parti la boo xam ne nii ba ñuy juddu euh, xëy na euh, Macky Sall sax waxul waxi waxi waxi ñëw gane si àdduna kon bu ñu nee tey jii seen passé daf leen di rattrapé ñun suñu xel day dem foofu parti yu mel noonu yi nga xam ne ni dañoo jékki-jékki rek sey ci Benno Bokk Yaakaar amatuñu benn force Euh, pour taxaw waaye itam pedes gi nga xam ne gis nañu leen ci élection yi passé ak seeni jëfin seeni manin bu ñu ko waxee tam xam nañ ne fi suñu xel yi di dem donc kookee la wax loolu la wax ci commentaire yi mais aussi euh, li nga xam ne moom mooy euh, biir assemblée nationale ak la fay xew jar naa taxaw seetlu bu baax a baax a baax gars yi CSE li nga xam ne mooy HCCT lu jara jara xoolaat la ci côté bépp bépp bépp parce que Euh, foofu la ñu gis salfaañe gu bon ak bon goo xam ne Macky Sall def na ko ci bi muy dem bi muy tàggoo jël na ñi nga xam ne jàpp nañu ne euh, poste politique moom moo tax mu yóbbu leen mu jël leen toftal leen foofu jox leen ñu daal di amagum seeni ay salaire pendant quatre mois yii fi nguur gi toog lépp ñoom ñi ngi fayeeku di am seeni salaire est-ce que ñu ngi liggéey c'est des questions yoo xam ne il faut ñu koy poser wu fii ci Sénégal mais aussi c'est des c'est des c'est yoo xam ne dafa banqaasoo ci état yoo xam ne est-ce que amal nañu njariñ lan la ñu taxaw taxawaayu askan wi ba tax na tey jii ñu war leen fee bàyyi loolu lépp c'est à revoir te it am na ci lu ñuy woote ci kanamu askanu Sénégal gi nga xam ne ñoom ñoo war a xool ndax lii président ba Bassirou Diomaye fay bëgg ci HCCT ak CSE baax na ci ñoom wala baaxul ci ñoom donc te yaakaar naa ni euh, bu euh, nekkoon lu baax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bu yees bi du ñu toogaat di wax ne bu ñu bëggee rationaliser euh, dundinu état dañuy daal di dem supprimer ñaari structure yooyu donc c'est des choses yoo xam ne ni aussi c'est à revoir Euh, en plus euh, ci gis-gis sama gis-gis man ak analyse bi ma ci def mooy dañ ko war a supprimer immédiatement dañu ko war a dindi immédiatement te loolu dafa war a tënku euh, ca lay jóge ci assemblée nationale naam sax ndax loi ci la ñuy tënku règlement ci la ñuy tënku mais aussi ci li nga xam ne nii moom la loi bi bind ci loolu la ñuy tënku mais aussi est-ce que buñ ci tënkoo dinañu amal njariñ ma ne waaw man loolu laay wax sama analyse bopp dama naan waaw dinañu amal njariñ ndax li war moom mooy ñu dindi ko fii am na alal joojee di dem ci ñoom euh, loo xam ne nii structure structure yi ñu war a supprimer noonu daf alal ja dafay dem te tey ji buñ ko jëloon def ko ci leneen lu ñeel askanu Sénégal dinañu am ngëneel ci li nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la ñu moom la ñu bëgg a doxal te it yaakaar naa ni bokk na ci bëgg-bëggi euh, le président Bassirou Diomaye Faye ak euh, ki nga xam ne moom mooy la premier Ousmane Sonko ñoom yaa yàgg nañoo wax ni il faut ñu rationaliser les dépenses de l'État pour ñu mën a xam exactement fan la ñu mën a jëlee xaalis pour mën ko indi defaat ko ci euh, gafakaay askan bi askan bi bokk ko te loolu noonu buñ ko bëggee defit nañu nañ leen ko yombalal ci côté yëpp yëpp man loolu laa gis ba tax na la fay tukkee après incha allah dinañu ko xam waaye itam dañuy desandi ci ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna nga xam ne moom aussi euh, demoon na ca perchoir ba jël na parole comme député du peuple le baobab comme ni ma ko tàmm di waxee bu ñu gisee nen nañuy tàmm ne nen a ngi bu ñu gisul nen nañ ne fii gis fa nen loolu rek la moo tax Guy Marius Sagna ca dëggu ca fulla ca fayda ga ca na mu mën a euh, euh, taxawee ak ki nga xam ne moom mooy di mën a taxawalee ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ci assemblée nationale def na ko rek euh, euh, def na maninam euh, comme d'habitude moom Guy Marius Sagna laaj nay laaj ab question kii nga xam ne moom mooy Amadou Mame di président bu assemblée nationale nee na ko yow xanaa tey nga xam li règlement intérieur tey nga mën a jëfe intérieur bu assemblée nationale waaye itam bu ko waxee nañu ne rek du ne kenn du ne guléet parce que avant Amadou Mame Diop règlement intérieur bi xëy na baaxoon na mais après Amadou Mame Diop règlement intérieur ba cala sañ fa salfaañoo ca lañ ca defee lu leen neex ñoom waa benn bokk yaakaar ga nga xam ne ñoom ñoo fa am majorité waaye nag tey jii bu ñu toogee ba tey muy euh, jéem a euh, dëggal règlement intérieur wala sax di ci tënku pour di doxal la xew ci assemblée dañu naan ak cant la sant yàlla la maanaam la bëgg ma ngi am changement bi ñu bëgg mi ngi am te it euh, euh, la ñu bëgg ci réglement intérieur bi ci assemblée nationale ko ci sunu loi yi nga xam ne ak règlement yi nga xam ne ma nga bawoo ca euh, constitution ba ñu ni dañ ciy sant yàlla bu baax a baax moo tax kii nga xam ne mooy Guy Marius Sagna di ko ko fàttali lu am am solo la te it nee na ku fi perturbé dafa war a wàcc ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, toogukaay yooyee ca assemblée nationale ñu génn la ca xaj parce que nee na li ko waral moom mooy kenn dootu fi perturbé ti parce que li ñu war a tënk fu nekk nii moom mooy ci règlement intérieur bi waxaat na ko kii di président assemblée nationale mais tam moom mi nga xam ne moom mooy Guy Marius Sagna li ma wax léegi rek la wax mooy rationaliser les dépenses de l' état war la parce que nag état bi mënul fu mu toll di lebi xaalis te jël li nga xam ne nii moom mooy yenn yoo xam ne Euh, dañu koy euh, euh, bàyyi ci ay structure yoo xam ne amal amalul état benn njëriñ amalul sénégalais benn njëriñ ñu ko fay bàyyi ci xaalis boo xam ne nii lu mën a ñàkk la donc moom Guy Marius Sagna wax na ko ba mu ko waxee tam ci ay commentaire kii nee na moom Guy rek lay topp kii nee na quel homme force à toi Guy ku ne xam na ne Guy moom à chaque fois boo ko dugal ci internet bi du bari lu muy am ay commentaires yu négatif du ko bari mu koy am ah, am na ku wax ni merci Guy ah, bravo le baobab Guy le le le porte-parole du peuple euh, ku ci nekk daal ak na mu ko tuddee daanaka ah, commentaire Guy Marius Sagna yéen yéen a koy gën a xam moo tax jaruta sorel jaruta liir lu baree baree bari donc bu ñu jógee nag assemblée nationale nañ leen doxantu dem ba ci ab euh, wala sax ñu desandi assemblée nationale parce que euh, ki nga xam ne moom mooy Farba euh, ci vidéo bi nga xam ne nii moom laa leen di wax nii vidéo bi moom as moom Farba Ngom dañ ko ko monteel bëccëgu tey nee nañu Farba Ngom avec Macky Farba Ngom sans Macky boo xam ne dafa taxaw di jox xar bi ay baaraamam di wax lu ko saf ci biir euh, hémicycle bi di joxar bi di wax ak nu mu ko neexee ay moroomi député yoo xam ne ñoom ñoo far taxaw di ko tàcc comme pas possible loolu ñu ne dafee war a jeex tax na tey moom mi nga xam ne mooy Farba Ngom ba mu ñëwee daf ne nooj ña nooj toog ne patt pattiral mel ni du woon moom moo yoroon làmmeñam ba du woon moom moo yoroon li nga xam ne nii moom mooy euh, critique ya du woon moom moo yoroon euh, wax wax ji ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay moroomu député yi nga xam ne bokkut ak ñoom camp bokkut ak ñoom fu mu far ci waxanteelu ñaaw ci lu ñaaw ci pousse ay moroomu député am yoo xam ne moom moom ak ñoom ñoo bokk camp ngir ñuy attaquer kenn wala sax préparer leen bien avant muy ñëw moom far ba moomu tey du woon far ba mi nga xam ne moom lañu daan gis tey jii wane na ne far ba mu nguuru Jomaay Fay la fii borom doolee dootu fi fëgg dënn fii képp koo xam ne nii dangay jaay lu amul Sénégal yi dootoo fëgg dënn képp koo xam ne nii dangaa jël alalu askan wi toog ak moom dëxëñook moom dootoo fëgg dënn lii leen war moom mooy toog noppi xaar ba xam fan lañu jëm ak ñoom ñii nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal ndax buñ dee wax ci nguuru mag sàll ci def lu lu lu baaxul li Farba Ngom da cay bokk ci ñi jël pee waaye itam buñ dee wax ci hémicycle bii ci assemblée nationale bi ak yàgg ñoo bañ a teewal yàgg teewal seeni bëgg-bëgg bëgg-bëggi Macky Sall moom Farba Ngom moo ci pay ba tax na moom sax dañ koy tuddee euh, monsieur procuration ndax Farba Ngom borom procuration ya moo daan toog député toog nii di ko xool mu yor procuration war ko votel ci li ko li neex mag Sall donc Farba ngoom kon kenn dootul fàtte waaye Farba Ngom moom tey ji moom moo ne nuut ne nocc toog ne patt pattiral donc dañuy doxantu wax ci leneen loo xam ne dafa ñeel askanu Sénégal ñu da koy cëwtu cëwtee fi nga xam ne moom moo di euh, ci biir euh, réseaux sociaux yi euh, mu di rek li nga xam ne moom mooy génnuk àdduna wala sax nag euh, euh, euh, ñu dem ci ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne ginnaaw màggalu Touba ak léegi bokk na ci ñi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ñu gën a cëwti cëwtee boo dee xool ci biir réseaux sociaux yi rawatina ci Sénégal ak fépp fooy xool parce que ci ab lettre boo xam ne nii ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ñoom ñoo yor wàllum organisation ci màggal tuubaa gi dafa am ci koo xam ne dafa bindoon ab lettre yónnee ko ca euh, ca euh, euh, palais présidentiel nee nañu daal boobu la lettre Cheikh Oumar Diagne tontu ci tontu ba nag favorable lu leen neexu leen waaye loolu defe naa wax ji waroon naa fay ca jamono ja nga xam ne ni ci lañ ko waxee parce que ci jamono jooju la ki nga xam ne moom mooy le porte parole. di xalif général des Mourides daal di génn di Cheikh Abdou ba euh, euh, euh, Cheikh Bass Abdou Khadre génnoon wax ni ki nga xam ne moom mooy xalif bu bu général bu Mouride yi di sëñ taxa Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom yàlla yokk ay fanam bu baax. may ko wér moom moomee nga xam ne nee na amul benn benn wala dara dara lu muy wax. ñi nga xam ne ñooy état bu Sénégal ndax lépp lu waroon ci màggal gi ñoom matal nañu ko lépp lu ñu waroon a def def nañu ko te it sant ak ngërëm rek la ñuy def ci seen ci seen taxawaay ci màggal gi lu ni mel nag ba mu amee la ñëpp waroon a noppi mais dafa juraat ay coow parce que am na ci ñoo xam ne nii dañu génnaat attaqué ci par ci attaqué ci par ça par là ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diagne ba Cheikh Omar Diagne génn moom tam di riposté gis nañu mu def euh, ab live jagleel ko euh, Thierno Mouride Sadikh mi nga xam ne nii boob ba tey moom aussi mu ngi ciy wax ak di ci def donc bi mu génnee Thierno moom moo jël vidéo posté waat ko ci page Facebook am nee na daf ko traité de de chien maanaam xaj de chien léegi nag lu ni mel ba mu ko waxee ñu bari bari ci biir commentaire yi am na aussi euh, lu ñu wax euh, ci biir commentaire yi yooyu yëpp jarut liir nañu romb loolu parce que ne damay li may wax tous les jours nettaliwaat xuloo day indiwaat xuloo ba tey te yaakaar naa ni euh, mbir mi réglé nañu ko ca ba sëñ Bass Abdou Khadre génnee la porte-parole du gouvernement le porte-parole de du khalife général des mourides ba mu génnee wax yaakaar naa ci la wax ji waroon ferankulaay mais nag li ci toftalaat bokk na ci sëñ Modou Bousso Dieng ci lu ñu gën a euh, gën a jaaxal sëñ Modou Bousso Dieng mi nga xam ne génn na daal di ne euh, kii nga xam ne moom mooy euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye na tànn ki nga xam ne moom mooy Cheikh Oumar Diagne wala Touba xam ma xaw ma dégg ngeen ma xaw ma déggu leen ma léegi bu baax mu ne docteur Serigne Modou sa Dieng daf ne ci ab vidéo wala sax ab interview bu mu bu mu doon wa bu mu doon def nee na dafa dafay assumer ne moom moo wax ni président Bassirou Diomaye fay dafa war a choisir entre Cheikh Omar Diagne ak Touba yaakaar naa nag loolu bu ko dee wax mooy euh, moom Serigne Modou Boussa Dieng du moom moo war a wax lu ni mel du moom moo ñu war a wax lu ñu mel du sëñ Modou Boussa moom moo war a wax ni moom Cheikh Omar Diagne wala wala Touba na ci président Bassirou Diomaye Faye choisir kenn parce que moom mooy kan il est qui il représente quoi il est qui dañ koo yónni kan moo ko yónni lan la exactement bu dee mbirum politique nañ ci génne mbirum tarixa yi nañ ci génne mbirum Touba ak màggal ak gàmmu nañu leen ci génne mbirum politique bu fekkee moom ngeen di doxal génne leen ci lillaahi wa rasul yenn yi nga xam ne yéen a koy wax te du te normal du yow yow c'est la personne Euh, bi nga xam ne yow yaa wax lu ni mel du yow yaa ko war a wax le président Bassirou Diomaye Faye du yow war a wax li muy def ak li muy wax yow tu kii yow yaay kan ba nga xam ne nii yow yaay toog pour wax ne na choisir Touba ak lii tey say kilifa li ñu wax ci loolu nga war a tënku man ci sama xalaat bu fekkee danga nga ne yoonu murit moo la tax di bu fekkee da nga ne yoonu murit ci nga tënku bu fekkee da ne yoonu murit moom moo tax ngay ngay ngay xuloog Cheikh Omar Diagne yow tënkul ci la say kilifa wax la say kilifa lañ wax moom mooy génn amuñu xeej amuñu seen ci li nga xam ne mooy gërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy état bu Sénégal gërëm la gouvernement bu le président Bassirou Diomaye fay yaakaar naa ne bu fekkente ne euh, taalibe ab yar rek ci la war a dox ab yar ci la war a war a nekk yaakaar naa ne waroo contester lu ni mel waroo indiwaat say wax ci lu ni mel te it képp kuy waxaat yow war ngaa mën a tënk parce que murit ndigal la ñu wax te ndigal la jip na ca ba le porte parole du xalif général waxee ca nga waroon a noppi. te li ñuy wax tous les jours rek nit ki fa aw nga xam sa bopp au moins moom Cheikh Omar Diagne bi Sénégal soxlaa nekkuloon koo xam ne toogu fi woon rek di chanter toogu fi woon aussi xa xalab ñi nga xam ne ñoom ñooy askanam au moins àndoon ak ak askanam àndoon na ak ñoom ci seen bëgg ak seenu bañ àndoon na ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy seen nekkin ba mu xeex ak mu xeexal leen ba ñu egsi ba fii bokkul ci ñi nga xam ne nee nañu ay sëriñ lañ wala faux sëriñ lañ bay dugg ci yenn yi ak di def yenn yoo xam ne nii xalaatuñ leen ci woon woon wala gisuñu leen ci woon woon loolu moom moo fi jeex la woon wonni na euh, lii président wala sax gouvernement day continuer nekk waaye itam li nga xam ne nii moom mooy rek euh, euh, tarixa yi dañuy continuer di fi nekk te fii kenn gisu fi euh, gis nañu fi ex politicien gis nañu fi ex ministre ex président de la république mais li may wax tous les jours kenn gisu fi ex ministre kenn gis gis fi ex ministre waaye kenn fi ex sëriñ ex sëriñ ma soo koo gis ci ci ci Sénégal te kon yéen da ngeen a war a tënku ci li leen yàlla defal da a war a tënku ci liñ ne seen maam yi dañu leen ko liggéeyal te bàyyi waxi baa étage yi da ngeen ko war a arrêté yow tuye kii pour dire que le euh, le président de la République na soo agir entre Cheikh Oumar wala Touba. tuye kii boo ñu waxee yow la kan nag ñu soog laa wax li tax nga waroo cee wax donc euh, question boobu laa ko yóbbante te bari na ci ñoo xam ne nii ci ay euh, sénégalais ci commentaire yi lu ni mel la ñu wax waaw. waaw euh, kii nee na l'histoire se répète nañu bàyyi li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy def am na ku dem ba ci commentaire yi daan ne docteur ci lan nee nañu moom mi ñu wax ne docteur la docteur la ci lan docteur ci turian ak ci ñàkk wax dëgg lu ni mel nag ab ab commentaire moom moo ko wax ma liiraat ko euh, am na ku wax ni waxal ma euh, mo Modou Bousso ni ko Serigne fàllu Mbacké daa jaay njureelam jëndee ko ak taalibe na doon taalibe te xam ni moom du tuubaa waaw du tuubaa te bu doon tuubaa du doon du moom kenn du ko xam mooy li ma doon wax sànq ñëwaat na ci commentaire yi am na ku ne ay waay euh, Modou buso amati na buzz bu fekkee moom ngay ut xëy na di nga ko am ci lii te man nag bu doon man de préférence ñu bañoon ko ci ñu bañoon cee egsi ci ut buzz ak yeneen ak yeneen moo gën parce que ab taalibe ab taalibe rek lay euh, ci moom la war a deewaale euh, c'est quoi choisir entre Cheikh Omar Diagne et Touba kooku point d'interrogation la ko booleel ab question la ko posé moom mi nga xam ne euh, moom mooy bu euh, sa Dieng ba tax na am na ko ne waxi féq dëgg heureusement les sénégalais vous ont euh, temps bi moom moo ñu xoj waaye kon dinaa gën a liir commentaire yi nga xam ne nii euh, ñii nga xam ne ñoom ñooy askan wi commenté nañu ko ci vidéo boobu nga xam ne moom moo wala si publication bi nga xam ne moom moo tukkee ci bu sa Dieng moo voilà ci ci ci moom moo tukkee ci biir réseaux sociaux yi te wax ci Modou Bousso Dieng ci li mu wax euh, ci président de la République digganteem ak euh, ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diagne ak Touba waaye itam dañuy daal di euh, wax beneen ci li nga xam ne nii rek moom mooy ci ay information daal di ñëw ci faatuk Aziz Dabala ak Waly buñ ci taxawee nag dañuy taxaw ci benn activiste buy wuyoo ci turu euh, moomoo doomu dëkk bi ñun ñëpp xam nañu ko ci réseaux sociaux yi mu nekk ku ci présent nekk koo xam ne tam yàgg naa xeexal aw askanam ba tax na jëlooroon na ko fi lorange ba mu duggoon euh, kaso ak yeneen ak yeneen donc moom Momo doomu dëkk bi euh, dafa rek daal di ne ci ab live bu mu doon def ne Euh, Nabou yi mi nga xam ne dañu ko daal di arrêté ba yóbbu ko maf yóbbu ko camp ci jigéen ñi jamono ji ci dossier wu ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala nee na moomoo moomu nee na déggante na ak Nabou yi Nabou yi woo na ko waxtaan nañu ñoom ñaar lu baree baree bari moomoo nag toftal ci ay waxam ne nañu def ndànk nañu bàyyi ak procureur de la république mi nga xam ne moom moo yor boobu le dossier nañ ko bàyyi ak enquêteurs yi juge yi nga xam ne ñoom ñoo yeyoo pour wax ci pour ñu mën a àdduwaat ci li nga xam ne moom mooy euh, tuumaal wala seetal kii di Nabou Leye parce que wax ju ñaaw ji bari na moom dem na sax ba ne xam na bu baax a baax Aziz Dabala ndax xaritam la xaritam la woon ñu koy ñaanal yàlla xaariji ko aljana firdawsi moo xale boobu ñu àndal faat mais aussi xam na Nabou Leye bu baax nee na xam na seen diggante ñoom ñaar bu baax vidéo bi circulé nag loolu rek la ñu dégg ki nga xam ne moom mooy euh, moomoo doomu dëkk bi daal di koy wax ci kaw information yi aussi dinañ fas fas yéene jokkook moom gën a xool ana euh, lan moo lan moo la wax ci mbir mi. Nabou Leye woo na ma démb téléphone ah, waxtaan nañ lu yaatu ndax man problème bi kenn dégguma ci donc ba tey dañuy ñaan aji suñu xarit yàlla na ko yàlla yërëm mais Nabou Leye woo na ma démb waxtaan nañ lu yàgg maanaam moom xamal na ma nit lu bari waaye azim moo tax gis nga yu mel nii bu amee ñëpp dañoo war a teey gis ngeen enquête police. buñ ko jëlee ba yóbbu ko tribunal pour ñu xam dëggantaan njaay li ñu war a toppee nabu lay pour jàpp ko wala ñu bàyyi ko. loolu bu ñëwaatee enquête la bu ñëwaatee enquête li muy wax ak juge d'instruction bi ci loolu lañuy sukkandiku pour yóbbu ko jugement wala ñu bàyyi ko. moo tax yu mel ni bu amee nit dañoo war a teey Nabou ni mu mel ak Aziz ah yoon lañu woo ko. gis nañ numéro gisuñu numéro lu ci mën a xew man xam moom mi ngi ci loxoy yoon du dëgg mais nag yu mel nii bu amee xam nga nañu teey quoi wala ñuy jiiñ kenn lenn nañu bàyyi jiiñaate ñaata nit lañ fi tëj kaso ci ay crime ay at barki dem rek balance ki ma fa mujjee bokkal balance mardi bi passé moo Seck mais meurtre lañ ko jiiñ téye ko mandat dépôt six dañ ko mujjee acquitté te pourtant dëkk bi yëpp neewoon nañ moo rey justice da ko seetal xamal ko ni rayoo c'est pas que dem nga mandat dépôt rek li lay toppee yaa ko def déedéet man mi dem naa mandat dépôt te li may toppee def donc euh, mbokk yi waxtu wi xoj nañu daanaka dépêche yi ñu génne woon yëpp mënuñu koo xajal euh, ci li nga xam ne moom mooy ci la toile bu lënd bi dañ leen di jox dig daje incha allah ni ki suba ndax bëccëg gu jot incha allah bi dinañ leen indil la toile li gën a fës ci internet bi ak xumande Mandela ngeen koy am ci seen chaine bi nga xam ne moom mooy Walfnet kon dee leen ko kal chaque jour ci Walfnet ak li nga xam ne moom mooy xew ci toile bi incha allah rabbi jërë ngeen jëf safoo bi topp bi ak faale bi